alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamualeykum tafsir abdourahman asalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'i wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam xaalif Chérif ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax. di nuyu tey ziar mbooleem fa tabaarakallahu téléspectateur. Mhm. yi nga xam ne yépp ñu ngi seetaan seen émission bi di seen suukaru koor. Mhm. di ñaan suñu boroom. koor gi yàlla nañ ko àggale ci jàmm ak salaam yàlla nañ ko yàlla nangul dafa mel ni macha allah xaaj na nag tey <laughs> fa tabarakallahu am nañu fukki fan ak juróom ci tey fa tabarakallahu yàlla na yàlla nangul ñu lépp rek yàlla na ko yàlla nangul chérif bismillah jërëjëf tafsir ñu ngi delluwaat euh, di jaale mbokk ñàgg yëpp waa Lac Rose waa Déni Birama suñu baay bu baax bi alxaaji Idrissa Diop Idrissa Diop boobu nekkoon ca ñàgg mooy papay di jama sama jigéen bi ñoom xadi jumel xam nga bu muy génn àddina fekk nañu tournée Europe mhm. loolu moo tax fekk ñu fii woon waaye delluwaat di ko jaale waa ñàgg yëpp ndax nekkoon na góor gu baax góor gu tedd góor gu yiw waaye nag tey bi ñuy waxtaanee tawaadoo dama ci gis góor gi daal ci wàcc ba ca mbaax ga ca yiw ga yàlla na xippee àjjana bi jaay rasulillahi di la jotal nuyoowu Tamsir soxna ca Liberté 6. Mm, ku baax ku baax ku yiw te nag ku mën a dox diggante gor ak gàcce dox diggante gor ak gàcce Tamsir xam na ñun xam nañu yàlla na yàlla fay ko waaye fa tabaarakallahu tafsir ñuy wax ci mbirum wàcc gis nga ku wàcc rek yegg yonent yàlla Moussa yàlla da daan wax ak moom amul woon ku dox digganteem ak boroomam mboolem yonent yi ñii yàlla da daan communiquer ak ñoom ci gént ñii yàlla jaarale jibril seen diggante muy wax jibril ñëw jottali waaye Moussa yàlla danaan wax ak moom directement naan ko inna nii ana allah recevoir ko ca tuuru Sina naan ko faxlana alayka innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa benn bis yàlla dafa wax ak Moussa ne ko yaa Moussa atadri li ma jaaltuka kaliman bila wasitati est ce que xam nga lu tax may wax ak yow te amul lu dox sama diggante ak yow may wax ak yow directement mu ne ko yaa rabbi anta alamu bi zalika yàlla yow yaa xam loolu waaye man sa jàmbu doyadi bi munuma koo xam mu ne ko lii moo tax ma di ko def kaay bo wax la nag inni nazartu fi qulubi ibadi falam ara qalban ashadda tawaduan min qalbika xool naa xolu mbindeef yëpp xool naa ko gisuma ko am xol bu mel ni sa bos ci nangoo wàcc am toroxlu toroxlu xol wàccee sa bopp booboo tax nag man yàlla ma yëkkati la ba tey ji nii yow yaa am may wax ak yow directement exception yonent bi dam ko teg fee mm-hmm. waaye yonent yëpp kenn amu ci wàccuwaay bu toll doonu Moussa rek ko am ndax lan wàcce boppam woyofal boppam kon tafsir mbirum wàcc mbirum woyof loolu la ñu bëgg ñëw waxtaane muy lan at tawaadu xaali Ousmane bismillah macha allahu ay dara at tawaadu mhm. man tawaadaa lillahi rafaahu llah est-ce ku bëgg a daal yéeg bi gën a gaaw mhm. ascenseur bi gën a gaaw pour yéeg mhm. mooy wàcce sa bopp rek xam nga wàcc at tawaadu mooy contraire u al kibru rëy wàcc mooy fa tabaarakallahu bu fekkoonte ni nit wër na rëy mooy ci juddu juddu baa ngi fi xam-xam baa ngi fi garaat baa ngi fi kilifteef gaa ngi fi alal jaa ngi fi mën-mën baa ngi fi bu fekkoonte ni jóg yëkkati sa bopp rëy dagan na ñu ni lii war a tax nit rëy yëpp daje na ci yow ba pare nga jël lépp teg fële wàcce sa bopp noonu la ko sa maam Cheikh Alaaji Abdoul wala sa wayjur Cheikh Alaaji Abdoul Aziz Dabakh noonu la ko defe woon ku toll ni xalif général macha allah bokk fi mu bokk doon li mu doon daanaka jamono bi mu fi nekk mu magoon ci xalif généraux yëpp waaye jekki ba mu yàgg rek taal otoom dem Touba. jekki ba mu yàgg taal otoom dem jaamal jekki ba mu yàgg taal otoom dem Pire jekki ba mu yàgg dem feneen ak feneen ak feneen fu baree bari Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh taal otoom dem fa ngir seeti ñooñu ñoo xamante ni ñu ci bari ba jamono bi muy def loolu moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz féete bakk mhm. waaye mu ñëw seet si leen te ku mu ci woo woon nga ñëw wuyu ko mhm. waaye mu sol daal lam dem fekki la mhm. loolu lan moo ko gën a doon ak wàcc te Chérif xamoo ne suñu subhanahu wa taala bi muy lim nangu seen jaam bari na man jaamu yàlla laa d'accord jamu yàlla nga ndax yàllaa la bind waaye yàlla reconnaître sang jaam gis nga bi muy wax ci alquran wa ibadu rrahmani alladina yamshuuna ala al ardi hawna wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama ba aaya ba àgg suñu borom bi muy lim jaam yooyu bokk na ci melokaan yi mu wane ci ñoom melokaanu wàcc da sama jaam yi de maa ngi leen di tagg ñu ne yan jaam mu ni ne allazina yamshuuna ala al ardi hawnan mhm. dañuy dox ci kaw suuf wàcc seen bopp dox bu dal dox bu teey parce que dafa am ay xeeti doxin yoo xam ne dafa am lu muy wane day wane ak rëy du wane ak wàcc mhm. mooy léeg-léeg nga gis kuy dox pan ah, baraaye baa mu sol costume mhm. nga gis mu pant xeet la rek xeet la ci rëy nga gis koo xamante ni léeg lek mën naa am kilifa lay doon ci wàllu diine wala dara mu sol genn col gi gome ko ba mu taxaw daal di jël ay loxoom boot ci gannaaw xeet la ci rëy suñu borom subhanahu wa taala nag ba muy tagg taggul ñooñu ñëpp ñan la tagg ñi nga xam ne dañuy dox dox boo xamante ni na ko alquran waxe mm-hmm. wala tamshi fi l ardi marahan innaka lan taxriqa al arda wa lan tabluga al jibala tuula bonde bi jaru ko pante bi jaru ko boot loxo yi jaru ko doxal rek dox boo xamee ni ku la gis xam ne kii di dox kat nit ku yiw la kon loolu melokaan la ci wàcc chérif fa tabarakallahu gis nga bu ñu toppee wàcc bu ñu ko toppee ba topp ko dañuy gis ni mbooleem jikko yi ni ci rëy gën a yéese waaye boo toppee mbooleem jikko yi wàcc noonu la ci gën a baaxe moom wàcc parce que saa boo wàccee lépp loo xamante ni séq nga ko ak sa nawleb jaam mën ngaa taxaw ni ko baal ma àq saa boo wàccee lépp loo xamante ni lu di liggéey la muy ñaq sañ ngaa taxaw pour def ko. Mhm. Chérif at tawaadu. wàcce gi noonu Chérif. Tafsir am na benn bis Cheikh Al Hadj si Aziz Sy Dabakh. Mhm. wax la pour wàccam rek. Mhm. mës na dem na fii université Ndakaaru xale yi nekk ci grève bu métti. mu jóg ni damay dem université. am ñu ko téye déedéet papa xale yi dañu xaw a xamadi bul dem foofu na mu ne hé man ci mission laa ne dama fay dem. bi mu ne tëll biir université xam lu mu def dafa ñëw rek jël micro ñëpp topp ko. maam ñëw na maam Abdou ñëw na maam Abdou ñëpp wër oto bi mu jubal ci stade bi jël micro bi ne leen camarade nga dégg na jamono xale yi tàccu mu ne kuy seen maam yow kuy seen xarit yow kuy seen soppe yow kon nag maa ngi leen koy ñaan seen barke maam Serigne Touba seen barke maam Seydil Hadji Malick seen barke maam Cheikh na Cheikh Saad seen barke maam maam Limaamu dellu leen geen jàngi jël leen lépp teg ci suuf ñu ne ko maam jeex na yow yaa ko wax jeex na mu dem ci président ne ko président njaboot gi yow la ko yàlla dénk ëllëg loola yàlla di laaj la yomal qiyaamati ñëw na fii ci masjidu rasul am na ñoo xamante ni rëy nañu jombale nañu seen boppu nodd nodd jombale nañ ko seen bopp pour ñoom noddkat ak a baax aka baax bu ñu xamoon yiw te saa yoon noddee ba daaneel yàlla tabaxal na la kër ca àjjana yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ëllëgee yowmal xiyaam noddukat yi ni leen di xàmmee seen baat yi day kawe baat yu gudd la ñuy am ba pare weex tàll ak leer noonu la ñuy duggee biir aljana allahu akbar mu ñëw fii ci masjidu rasul ñëw ci fajar ku ñeme woon jàkk fajar la moom Cheikh Alhaji Abdou Aziz ñeme woon malaan wasifa la mhm. ñeme woon di julli ci jumaa mhm. mu ñëw ne Diop Ndiaye jottali ma bi ma noddu mu ne ko déedéet papa bàyyil xale yi nodd mu ne yiw gi nekk ci nodd yëpp naka lañ koy bàyyi xale <laughs> jottali ma micro bi ma nodd ñu jox ko micro bi mu téye nopp yi allahu akbar allahu ni mu noddee keroog boobu ruux yëpp ñoo yeewu ñu xam ni tey ki nodd bokk la gaa yi doon nodd de mm. nga dégg ci ni wa daaiyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira mm-hmm. kon góor googoo nodd tey mm-hmm. fa tabaarakallaahu ñëpp ñëw gis nga ci wàcc ak boo xoolee ku mel ni Serigne Saliou Mbacké mbaax ga ak yiw ga wàcc gi mu wàcce woon boppam gën a important ci réew lu toll ni institution président de la République ñëw ci kanam ne groupe ci suuf ministre yeeg ñëpp ne groupe ci suuf borom xam-xam yi ne groupe ci suuf borom daraje yëpp ne groupe ci suuf nga toogandoo ak xale yi jël basin riche di ko fompo mhm. nga gis wàcc gi mu wàccoon moo tax li ko Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh wax naan ko xaw ma kat waaye yow mii de billahi yaay doomu Serigne Touba Khadim Rasoul mhm. ayab na Khadimi Taha waarisi sirrihi xilaafatuka alxaawi ridahu bila jahdi xilaafatuka algarraa ahsanta salihan fa akrim bikum min duni naqsin wala zaydi mhm. dëgg dëgg da ngay xool mag ñooñu ku wàccul doo wax loolu sa nawle xalifa waaye ku wàccul sa xel mënoo la xalifa du la wax wax ju mel ni tafsir abdourahman macha allahu aydara chérif ak tawaadu wàcce sa bopp fa tabarakallahu wàcc baax na am na nag ñaari wàcc mooy am na wàcc bu baax bu ñu gërëm mais am na wàcc boo xamante ni kenn gërëmu ko wàcc bu baax bu ñu gërëm mooy nga wàcc fi nga war a wàcc ngir defar am na barab boo xamante ni nag boo fa wàccee du yow yaa wàcc waaye da ngay delloo gannaaw lislaam mooy lan li yàlla di wax ci alquran muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni tekk mu ni walladina maahu ñu ni ah mu ni ashiddaau ala alkuffaari waaye ruhamaau baynahum hmm. mooy saa bu ñu nee duut baaraam diine ji hmm. wala tariqa bi nga sol mbubbam taxaw nag mhm. defante ko ba mu saf sàpp bu boo ñu ni da ngaa rëy wala nangam mhm. waaye nag saa bu ñu nee duut baaraam yow sa perso yow en tant que personne mhm. yow la ñu duut baaraam mais du diine ji du tariqa bi du nguur gi du du mi du dara yow sa personnalité moom la ñu attaqué su boobaa nga jéggale ndax yonente bi sallallahu alayhi la ko daan defee yonente bi sallallahu ni mu ko daan defee mooy bu ñu laay laalee diine ji ah amatul sago am na benn bis benn jigéen bu ñuy wax Fatima al ñu yónni Usaama tabnu Zeydi ci rasulillahi salaay salaam. Mm-hmm. di ko ñaan ni ko kii dafa bokk ci famille bu baax boo daggee loxoom day nangam ak nangam ak nangam. Mm-hmm. yonent bi salaay salaam kere la ñu gis mu mer. Mm-hmm. kere la leen ni Usaama yow yaay ñëw di ma ñaan ci loo xamante ne loo la bu yàlla teg. xanaa xamoo ni Fatimatu bintu Muhammad bi ma jur. bu fekkoonte ni moo dagg ma moo sàcc ma dagg loxoom rawati keneen usaama xanaa xamoo ni xeet ya ñu jiitu la war a yàlla daan leen alak mooy koo xamante ni def nga naka sudul noonu boo bokkee ci lu ñuy tuddee famille bu riche ñu négocier ko bàyyi mu jàll boo bokkul ci lu ñuy tuddee famille famille bu riche ñu jël luwaa teg ko ci sa kaw usaama bul ñëwati di ma ñaan ci loo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala luwaa la bu mu teg allahu akbar kon wàcc fi nga war a wàcc mhm. mooy saa bu ñu la laalee mhm. nga wàcc mhm. nettali naa la fii démb ci émission bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku toll ni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xoola ci wàccam am na bis moom rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dafay dawal mbaam romb benn saxaaba ci mbedd Madinatul Munawwara saxaaba bi nabi ni ko foo jëm ci biir dëkk mun ko waaw nabi ni ko naaj bi tàng na de kaay ma yóbbaale la defaraat toogaayam saxaaba bi ni ko yaa rasulallahi yow ngay dawal mbaam di ma supporté loolu ñi mew ma ko demal rek ma dox mhm. yonent bi ni ko bu dee ndigal yéegal ci mbaam mi saxaaba bi yéeg ci mbaam mi bi yonent bi agsi ci digg pénc mi gaare mbaam mi wàcc saxaaba bi wàcc gaa yi naan xool leen ma bii yonent yonent buy war mbaam mu ni leen léegi mbaam mi ma war lan lay wàññi ci yonent gi dëgg dëgg wàcce boppam rek mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam moo tax samam sidaaji Malik ba muy wax mu ni la mu jiw ba daawati mamlukin waaye wa raakiban alximaara aida zil awjaa'i wa saqami yonent yàlla Muhammad salaay salaam supporté na nit ci mbaam yonent bi salaay salaam supporté nañ ko ci mbaam firiwul nag ci mbaam ma rek xam nga lan moo waral ñu lay jàngal ni yéeg na ci mbaam mm-hmm. mooy wane wàccam rek salaay salaam ku bàyyi gëlleem mm. bàyyi fas mm. ba pare di war mbaam mm. mooy ku bàyyi oto 4 x ca biir këram bàyyi Mercedes ca biir këram ni kolobaan rek laa jëm génn jël kalandoo hmm. loolu fokk nga doon nit ku wàcc pour man ko chérif yal nañ yàlla fayal yonent bi boo amee looy tëjë nga tëj ndax waxtu wi jeex waaw xaali Ousmane ñu delluwaat rek xam ni wàcc baax na hmm. bañ a gaaw gis sa bopp hmm. xoolal tey li nga wax bu dee ci sa jëmm lañ la ko def bu boobaa mën nga ko baale waaye bu ñu duutee baaraam diine gi wala luwaa bi booba taxawal nga défendre ko naa alin dafay xeex ak waaja xeexak moom xeex moom ba daan ko xàcc ci yoonu lislaam ba war koo rey waa ji xàqaniku ne ko tëf Aline Rofaat Jaase bi ñu ne ko waa lu tax nga def lii mu ne dama xam ni heure boobu mënoon naa ko rey waaye bi ma xàqanikoo ba tufli ma mere naa ko mer goo xamante ni sama bakkan laa naroon topp su ma ko reyoon kon yàlla daf ma koy laaj ëllëg waaye bu mu ko reyoon fee dara du ma ci fekk bu ma ko reyee tëfli bi mooy tax mooy tax waaye dootul diine kon est-ce que est-ce que radiyallahu taala anhu samaam Seydina Alin yàlla nañ ko yàlla fay amin karamallahu wajhu bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhim sibtayni a'lamil huda wa bi sahbihi wa tabi'ina lahum fahum saadatuna ahlul makarim wa nada xaalis ah, man ay dara tey fi nga ah, génn ci wàcc ma sha allah jërëjëf ah, yàlla nañ yàlla fayal Alin yow yow ku toog yow moom la yonente bi noon ana madinatul ilmi ni wa aliyun aliyun karamallahu wajhahu mosula sujootal xërëm mooy buntu ba moo indi karamallahu wajhahu est-ce que est-ce que jërëjëf Aïdara jërëjëf Khalil Ousmane incha allah ba suba alayka ya ya rasul